jaajëfalaat Mawlana Cheikhul Khadim moo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru safarul xayri wi nu nekk di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi nu génn ci bis bi ñu doon sant la Sëñ Tuubaa boroomam ci ndigalam te mel ne Maodo Maodo yi ñu ci doon way sax day mel ne ci loolu la jëm di tàmbalee nag ci ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal Sëñ Tuubaa suñu borom gën ko fay yàggal te gën a yokk wéram ba mu àggale yéenam ci liggéeyal Cheikhul Khadim di ko ñaanal mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gépp di ko ñaanal suñu bopp itam nun taalibe yi di nuyu mboolem ñi ñu fekk jataay bi ñëpp di leen jot li yó yónnee bu bàyyikoo ci suñu sëriñ sunu soppe sëriñ Mor Mbàkke xam sa diine mu wax ne mi ngi tàmbalee nuyoom ci sëriñ Moustapha mi nga xam ne day mbokkam di kilifa jataay bi di ko ziyaara bu baax a baax di ko sant ci taxawaay bi mu taxaw ci liggéey bi nga xam ne moom sëñ Mor Xam Sa Diine jëwriñ la ci daa yaakaar naa junj nañ ko fi léegi ki doon wax ci turu taalif ci kanam wax na taxawaay bi sëñ ci ñoom nee na loolu mi ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm te di la ñaanal suñu borom gën laa defal tawfeex ak mucc ci barke Cheikh Khadim di nuyu jëwriñ ñi nga xam ne nag ñoo saytu liggéey bi nank ko di ko taxawu ba mu agsi fii di teg nuyoo boobu ci loxol sëñ seex Diop mi nga xam ne euh, moom ci ak sàkkoom ak yégalam xëy na mooy mooy mooy mooy waasita bi dox diggante mbooloo mi ak sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne mu ngi ndoglu ngànt bu baax ndax moo bëggoon a teewal boppam ci jataay bii ndax moom ku ko xam ci ak woyefam ak baaxam ak bëggam Sëñ Tuubaa te yaakaar naa na nañu ko wax ci ginnaaw sax xam ne du xeeb benn jataay ak bu mu mën a doon waaye rawatina jataay yii yaakaar naa bari na lu ñu fekk. kon tey am ngànt gu mu am ngànt loolu tax mu yebal ma man la waroon a boole ak rakkam Serigne ay bu muy Serigne Ebo xam ngeen ko ci ci waar bi moom itam waaye Serigne Ebo itam xëy tawat tey mi ngi doon wax sax bu ma féexee ñu dem waaye mu mel ne kuy miir looloo tax ñëwul xam naa ngeen ñaanal ko baax suñu borom defal ko tawféex kon sëriñ bi nee na mi ngi am mbégte bu baax te di leen sant bu baax a baax a baax sant leen rek ci tudde gi ngeen ko tudde bis bi ndax xëy na loolu seen baax rek la waaye daanaka euh, jëru ko woon sax waaye li ngeen di sante mooy taxawaay bii ngeen taxaw ci ni ngeen tuddee seen bokk muy Taalif ca kanam ba noppi di di di jëf luy firndeel loola ci loolu la leen daa bokk ci li ci ci mu baye waaram yaakaar naa ne lim taalif ci ay téere moom suñ Mor Xam si Diine bari na lool lool lool waaye lépp ci wolof la ko def wala boog lu néew la ci def ci arab xam naa dinañ ci indi tuuti sax ngir feeñal rek ak liggéeyam kon mi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom def leen ay mag mag yu amu ñam di sant nag ak a ñaanal bu baax mboolem mutarashikoon yi ñi nga xam ne posé woon nañ kenn daal ñëpp ñi ca dallu ak ñi ci ñëw final ñëpp mu ngi leen di sant baax di leen jaajëfal te xam ne ñëpp ay jàmbaar lañ ni ñu ko waxee. ba ci final bi boo ko xoolee maa ngi koy wax sëñ Abdou Khadir Bousso léegi moom maa ngi koy nuyu bu baax moom itam sama mag la sama xarit la sama lépp la boo seetloo dangay gis ne ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ boo seetloo li ñuy xel li ni mu yéemee ñaar ñi mujj sax maa ngi wax sëñ Abdou Khadir Bousso léegi ne ko. damay jàpp ne xiwaama gi nekk ci diggante góor ak jigéen loolu moo moo tax waaye ku jigéen bi jàmbala lool alxuraan daane ar-rijaalu qawwaamuuna ala an-nisaa bimaa faddala allaahu ba'dahum ala ba'd xiwaama googu nag dañuy wax ne dottu nafs da cee bokk mooy sago xam nga jigéen ñaare day gaaw ni loolu da ci waaye booy déggee ni muy waxe da nga xam ne ku xam li muy wax la waaye góor ñi it noonu kenn demul ñu des kon nee na mi ngi jaajëfal ñëpp ni ko mel na mbokk waxee rek xëy na buñ dee def musaabaxa du ñàkk ku jiitu am ku ca topp waaye ñëpp ay jàmbaar lañ kon nee na mi ngi leen di gën a soññ ci yoon wii ngeen sóobu di yoonu taalif rawatina di ko def ci wolof man de xam naa ne bari bariwaan na ay mag yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi te am na ci ndaw ñoo xam ne amaguñ fanweeri at fi mu toll nii di wax baate wolof yoo xam ne bariwaan na mag ñu ne ci dëkk bi ñoo xam ne xamuñu ko ci taalif yi ma dégg rek léeg léegi dégg naa ci baat yu bare bare yoo xam ne bari na man man man man ñu ko xamul kon loolu dafa am solo ndax làkku arab am na solo xam nga kii dafa wax ne dañ ci liggéeyal sëñ Tuubaa <clears throat> sëñ Tuubaa ci way yeneen bi la doon la ko doon liggéeyee jaaltu xidmatahu bi shi'ri naafilati baada al adaa'i li ma awjabta yallaahu kon ginnaaw bu defee farata yi ba noppi la muy la muy naati mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay way loolee nag bu ngeen ñëwaatee di ko ci way te loolu am na ñu fi jiitoon di ko def sëñ Moussa Ka euh, euh, sëñ Mbay Jaxate sëñ Mor Kayre ak ñu bari dégg nga sëñ Moussa Ka di wax ne arab balaa jëriñ wala fu ñu firi ko ku bëgg peese waa xam luy bëri ko wax na it bu yomal xiyaamee ba ba arab fuukari yoo xam danaa wax Serigne Touba lu tax ab arab wedam waxaat feneen ne li tax way wi wolof te di yaaram dama narga yi jàngul xam boroomam kon ñëpp jànguñu te ñëpp dañoo war a xam kon buñu jàpp ne ci ci làkk rek lañ mën a amee xam-xam waaye xam-xam moom ak làkk bokkuñu suñu war xam si dina am na ci way mu ko wax mm-hmm. euh, ma bañ a guddal tënk suñ moo xam sa dina ñi xamut Euh, mbokkam sëriñ Moustapha mii la way juróom góor mooy sëriñ Jili Gànnaar Mbàkke li tax ñu koy dàkkante la gànnaar mooy dafa demoon gànnaar dafa fa jàng ji euh, sëñ Mor mi koy wax ci wenn woy wu ko wu mu ko way di wax ne Cheikh Jili gànnaar la siiwee fépp foo mën a dem dafa dafa di koy wax ne gànnaar la jànge am na fu mu wax ba ne gànnaar la jànge ñu laaf gànnaar ca tur wa Cheikh Jili Gànnaar la siiwee fépp foo mën a dem boo ne Serigne Jili Gànnaar ñëpp xam nañu ko Serigne Jili Gànnaar moomu nag Serigne Mor Soxna mooy wuy juróom moom lañ ko tuddee moom Serigne Mor sa diine Soxna mooy taawu Maam Mor Jaara borom Saam wuy mu jigéen di soxna Diop Mbacke ñu di ko wax soxna Ndey Mbacke doomi Serigne Daam Mbacke moom maam Cheikh Anta borom gaawam bi mu tollee jàng alxuraan Serigne mi nga xam ne mooy mooy mooy kilifa gi mo jël alu ji bind ci bismillahir rahmanir rahim yebal ko ci seigne Cheikh May mom soxna May mënatum sëñ Tuubaa mu sàkk bind bobu ginnaaw bi nak ci la ko seigne Cheikh May jàngal ab dir yebal ya ko mu dem mbadianen ci ko ñox seigne Mahmoud ñang jàng fa dir diir bi mu dem kokki motale fa alquran ba bind ñaari kamil door a del ci nak ci seigne Habib mbacke mi nga xamne mo jangal bayam seigne sëñ jii fa xam-xam li mu xam lepp fa la ko xamee doon nag ku yàgg ku teel sóobu ci waar wi di waar way bu dee xam-xam bi moom du ma ci guddal ndax yaakaar naa bari nañu ko ñoo xam ne ci rajo yi lañ ko xamee mooy jàngale diine am na góor goo xam ne da daan wax ne yaa njëkk songu gaynde gi gaynde gi mooy fekk di jàngale fekk ci rajo ba ba ku xamutoon nooy laabe xamutoo fa xamu farate njàpp tey boroom kër nga jaare ci moom xam ko loolu moom du ma ci guddal waaye bu dee wàllu taalib gi dafay wax ne moom bi muy lu mel ne miraas buñ koy jàng bind buñ ko jàngal ci miraas bu demee da koy woy indi bind buñ ko jàngal bu demee da koy da indi ba taalif ci téere bu tudd atyabul ahadis fi ilmi mawaris di téere boobu ñaari xaaj la te fànn fànn xam-xam diini yëpp noonu la ko waaye bàyyiwul genn fànn jënd ak jaay ak sëy ak julleeg yëpp taalif na ci taalif na sax ci code de la day loolu it ba muy ba muy jàng code code code nga xam jàng doxal day bind bu ñu ko jàngal rek na mu ko doon defee ci miraas bind bu ñu ko jàngal mu way ko ba mu nopp mu tuddee ko subulu salaam taalib na téere bu tudd mottali ay mébét yu ñu sémb ci dekkalaat wala ci démb loolu sax dinaa ci barkeelu ci tarjumaan ji tuuti dafa wax ne xerawlu leen masad bi ci baati wolof ni sunu làkki maam yi déggatuñ ko faf ngirut ne sunu jamono lañ xëy mbaanik jànqe ko yaawur tarañaane kàcc nag te xëy ma ñépp këmm mbaa jëpp la dal ña jànq it seen di ñagaay seen wéttal gaaya rañaan war ca gëlee mi fande ya te xit fital ca ñàll golliku ya ba génn kéewi daan na yooyu ëwën na leen ni déet di def xëlloo bi gaynde sange leen jéggi dayom ku wessu lek moma ma meureut ba tax ma bëgg def lu ci waayam ngir dekkalaat ko alkandem di wër ta su xataat reen ya ba meññatam ma ñor ñu ras ko fu yoo ko tarac ci def ca fay yuur ca di fas du mooyu lepp lepp lu ay jafal la giim tatal ko ngàññi muy birax di lek suñu liw bi di lek suñu liw bi ba kenn dootu lox tanan tanan ci dakh gi bayyi tepp tepp yi ak deq yeeg njonox yi xonn xonn yi dëtam ba màndi ragu bokkul ak di ñeer ci loolu dafay góosaliku di yokkuteel mësey bandang wa wenn dooñu la tooyalul waame wa mooy tooyali tool te koy ñoral ba tax ma fëx ak ci wolof yi jiitu woon muy waxi sun maam ya di mag ñee fi newoon waxin yàlla jëlaat façon mu dekkiwaat te mooy wolof yi wér yi nar mu waxin walla jëlaat façon mu delsiwaat samay wolof yore ndar mu dekkiwaat hmm. tudde ko mottali mébét yu ñu sémbu ci dekkalaat baati wolof yooyu démb loolu tarjumaan ji kese la waaye da ko jël par xaraf xaraf bu nekk mu indi baati wolof ya nga xam daa tàmbalee noona indi ci lu bari te lépp ci way la koy def buñ ko waxee itam ci wallu taalif moom sëriñ mool xel dana dem ci way yi muy way soxna jaara xam nga atum 2008 dafa toog fi muy dal ci Porokhane ba mu yàgg aw bayit dikkal ko ci way soxna jaara mu bind ko da da cee jaare soit taalif xasida gi mooy googu tàmbalee ci mu jóg tatag bi lay bayit maam jaara euh, mu tatag bi lay bayit maam jaara sa jëf juróy jii ku ko xam sag waara la ko toppee ba ci daaw daaw wala daaw jéeg mu jël ma del na ko am na ci at yoo xam ne sax ñaari xasida lay def te diggante tisbaar takkusaan wala diggante yor-yor bi diggante suba ak tisbaar ci la ci la koy woy ci bisu màggal bi fi mu woy na ci lu mat fukki xasida ak juróom-benn genn laa ciy wax rek ngir bañ a guddal rajas manhuuk la ko def dafa ne ma dellu jaaju fab xaliin sëpp ci daa wiccax te tiim sama wëkk yi teg ca tari tariim di tagg kañ la muy ka yàlla fa teg ko ca kaw ñépp di séen ak di ko naw wareef la ñépp jóg taxaw kañ ko tawoon ko sépp cam ka jàppe yàlla dëkkandoom ba far ca mel ni turandoom fàtte jëmmam akub juddoom defar ko jaay jëndi ngërëm ngërëm la jënde ak njëgam ci pas-pasam ak ci jëfam ba xëy ca dog sàqi fukkam am na manoore am na ndam raw nga yàlla def na ko xemam ba yàlla bindu ko ummul kitaab yaxal na ko ku nangu noppalu xolam yàlla ne laa mu àqiba li xukmihi ci téere ba jiitu nga ñëpp atte ba dog na wa jafatil xalam kookaa di jaaratul ilaah xabibati sayfil ilaah wa izzati xibbil ilaah rijaal ya seere nañ jëfam yitteem ja kenn fekk ku ca jëfam ja kenn aggu ca tapas pasam jiitu na ca ku dee fi tudd lëm gën a ñépp di jikkoom te jikko yii moo di jiwoom njéem la sax na meññi woom ba daj na fépp ak njariñam la gën ci jikko moo di jom te mooy mbañam rus ku ko am du def lu juunu ci cëram te du ko fas ci ab xolam te it du wax mukk safaan ci làmmiñam du am kañaan da cay bëri bakkan ba daan te soxna jaara jom la am ba tax mu daa jokk kadog bokk ga tey jokk kadog kóllëre tey jokk kadog la ci xàq ay dëkkam te daana jox it ku ko xañ te kum xam it dootu la xañ lenn yëfam te mës sa bañ ak ay xëy bi mbiram te daana jéggalit ku tooñ te moo ni moom mësul di tooñ mukk da daa reexe ka muuñ di ràcc it xar kanamam nde yërmandeem jëf moo bari te mu def gor su gore du saggi sag ak ay wore te du xañ kenn cëram lépp lu yàlla xas bagal gërëm na loola day joyal mbiram ci yàlla aw ndigal ba xëy na jiitu ay kemam muñam nga nag ëpp na xel mësul di jàmbat di dikul mësul di ñaan kenn ndimbal ku dul ka sàkk ak amam te tëye woon na làmmiñam mësul di tudd senn cam ci fu mu yàq deram waxu yiw ak la xam talum xamit ci mbóot du siiw nekkoon mbirum sëriñ bi siiw ci ak rawam te siiw boo bëggalul ne kon mu dem te lu mu xamit ci mbóot du siiw ne kon sëriñ bi siiw ci ak rawam te teel a siiw boo bëgganul ne mu dem waaye mu denc sekkare yu yéeme yooya ngir gore di sàmm xàq ni mu ware jural na koy ndamat ngërëm te gaa ma gën a yéem ne ma ta kenn yitteem li anna qalbaha salim yalla ko fotul xolam musul di yéeni nit lu bon te mës ta wax kenn lu bon te def kenn lu bon du lu mu xam du lu mu am lam yéene won jëmm ja dal la yéene won ñepp a kanaal te li ma wax du xii la ku nekk seere nak wéram xelam rafet xolam rafet jikko ji lepp rafet jëfam yepp rafet te yi di firnde ci matam kersa waroon ko gep wat du siggi xol ne jekk nit du xas du janni mukk nit du wax ko luy jurum meram du tudd nit fu mu newul du wax itam lu mu xamul lepp lu yoonam it newul daana ci jappu njàmburam ba yalla fay ko ab xolam jox ko lu kenn musta am ta modi dom ju musta am lu jiitu dootu am itam ta modi shaytan al khadim me yalla tan non ca mu kalim yep itam donu na mustafa al karim di jëwriñam sax di xadiim jëfal ko jëf ju ñëpp yéem am ca lu kenn mësta am xamal ne caabi magasin yooyu yàlla yii moo ko yoroon kon nos yi moo ko téye woon ku yewu jox ko ak tumam moo xam sa diine donga bi sa sët bi tey sa soppe bi ñëw na fëggaat sa bunt bi ngir nga duyal ko ay ndabam damay taxaw lu far fi yam tafab samay mbir ne ko am te jéem a roy ci ak njubam ku roy ci moom raw yi صلاة ربي الكريم على النبي خير الأنيم وآله مع الخديم والصحب ضل الجرم بكونا تي لما لما لما دانل رك لتخ وي أم صلاة وي دفما نتنك خمخم وي دفما نتنك خمخم دانا شاعر بو بو عرب للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا hum talhatun wa bnu awfin wa zubayru maa abi ubaydata wa saadaani wal xulafa nga xam ne ñii tuddee al asaratul mubasharuna bil janna la tënk ci wenn bayit hum talhatun mooy fukki ñi ñenent bi garanteel àjjana donte saaba yëpp dañu dem àjjana waaye ñoom ñenent bi lañ ko tuddal nee na talhatun hum talhatun wa bnu awfin wa zubayr te mooy zubayr bnul awaam maa abi ubaydata mooy amir bnul jarwaax wa saadaani te mooy saada ak saayid wal xulafa mooy abu sidna abubakar sidna omar sidna ali ak euh, sidna osman wala ni nag damaa gis wenn euh, xasida goo xam ne sëñ Mor dafa ci lay jaaxale da ci doon marsiyaal sëñ Saliou bi mu fi jógee ajjuma ji ci sëñ Saliou jógee dafa wax ci baxru xafif ne addinaa ngoogu del si naa dëkke war tey mu xëy nu jam bi la jam-jam addinaa ngoogu delsi naa ko man yinam dëkke war tey mu xëy nu jam bi la jam-jam jam nanu xeej ci paddu ku di jullit te waram yii du gan ci nun mu am ndam ajjumay tey di fukki fan ak juróom-ñaar xaj tasin di wa tabaski xëy na rëy am bayit woowu tënk na ci taarixu wàccu liggéey Sëñ Saliou ci hijriya ajjumay tey di fukki fan ak juróom-ñaar xaj tasin mooy at mi 1428

cheikhu saleh sangees jullit ci fa di kaaraange dem na fay ka amul kem cheikhu saleh xurmul faqir yi ka doonoon jëmukaayam ña aajowoo la ca kan. ténqam ñi jirim ak ñi bàyyi moo fu jëm tey ngir ne seen sàq maane mes ak i tóoram rongoñu tarbiya gi yol ka mu meenam ka ko la di bayam xam-xamit ser na ngir ko dundal ka mu doon nàmp xëy feral ko ci weenam ka fi doon ndey di bàyyi di sang di wéttal dem na nii rek feruñ mu dëddu njabootam lage nag jàpp ndal ba jëm weti ndookaa ak xel koo ma yëpp a sang baa dem li mu def moom ci xeetu njëkk ak i yiw ku ko doon xayma doo matal ku bari ndam ni njariñam dajoon na àdduna sépp jullit ak yéefar ku leen ci ko Mbacke daa xettalee di gindi di yeete di wanew yoon te jiitu nag ci jom ak xam ku mu raw it taxaw di nekk ba nga agsi gàttandoo it ña des gannaaw bëgg ñuy dem li mu jàngal ba def ci ñoom bari xam-xam li mu yar it ci ndaw ñi bañ defi kàngal li mu fàggul ci ay ngërëm ña ko toppoon lu defar seen tey ak ëllëg du lu ñuy lim tamu doon tamu doonoon liggéeykat yi di ku rëy jëf fa mu daan xoole raw na bët fa la fay di ku yéeneem rafet te yaatu te am lef di ko ëmbal ko yëg ku nekk yiw te di luñ xam daje nag yërmandem ja daa yemuloon kan ba taxoon ndey ji seex la jox ñëpp weenam te ku feesoon la dell yi te ne degg te du laal baatinam ci wàllu jëfiinam mënumaa bind lim fi jëf sama làmmiñ su ko doon wax du jot fukkeel lu ma lim lim ba yeboo rek ma far taxaw nde li may def mi ngi tolloog di as ci géej ak i koogam bu du doon lim fi xàllu yoon njëkk muy dem te joxoñ yoon wa aw nitam ndawi lëndëm bu dutoon lim fi xàll yoon njëkk muy dem te joxoñ yoon wa aw nitam ndawi lëndëm saalihun wa huwa muslihun wa salihun aslaxal kulla lépp a jag njëkk muy dem na ko Seexul Xadiima teeru teral ko diggi tér daw si sóonu cay gàngu naayam te di gudd aw fan te mu wér tan matal ba dolli ñaraasam lu suñ baar la doon te ñu téeñal ko boobu yanam du ko diisal mucc ci ndox akum ndab ak ay luy am jërëjëf jërëjëf amiin amiin dëgg la dëgg la dëgg la. maanaam waaye ñaari bayit moo ci man ñett ci ñett ci des te di ñaan Ahmad Amin gudd aw fan te mu wér tam matal ba dolli ñaraasam te ñu téeñal ko ba bu yanam du ko diisal mucc ci ndog akum ndabak ay luy am rabbi sallim ala nabii wa salli teg ca aalin wa sahbihi saxakii ndab sëñ Abdou maa ngi leen nuyu sëñ Abdou Lahad Seye al amirul mahzour moom comme moom ni ci bi sax ñoo bokkoon dañuy def ibtidaa yi ñoo maa ngi koy jaajëfal di ko ziyaara bu baax ba moom ci jàmbaar yooyu kon ñu ngi jégglu di wàcce fa sunu kaddu ñaan sunu borom defal nu tawféex xéer nu ci ak te saxal nu ci def na dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa nangu na suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ok waaleykum salaam wa rahmatullah Serigne Babacar Thiam ñu ngi lay ndokkeel bu bah, a baax a baax waaye di am mbégte bu baax a baax a kon liñ def muy jël tur di jox sering Serigne Mame Mor Mbacke xam sa diine kon loolu rëccuwul ko ndax lii nga fi wax kat wax dëgg yàlla bu sëñ Mamour taxawoon lii lay wax te ñun ba ngay wax sëñ Mamour lañ yëg kon lool beneen affaire la waaw waaw maam ñëpp rek sëñ Mamour Mbacke xam si diine lañ yëg rawat na nag bi nga jàllee siñ sëñ Saliou nga xam ne kenn ku nekk moom sa xol tooy na waaw ku koy ku toog ku nekk maam képp kuy déglu rajo yi rek sa xol tooy na kon ñu ngi lay ñaanal suñu borom dafa la tawfeex soo demee nga ni sëñ Mamour suñu xol sedd na lool wallaahi wallaahi suñu xol ndax lii li tax ñu def ko mooy li nga wax rek muy yaatal xam-xam waaye wane ni am na kàngam yoo xam si ni ñooñu jiit ci waar wi gën ñu ko man fop dàq ñu woy fop defar ko ba mu rafet ñu ñu ñëw man cee neex kon ñooñu war na ne delloo njukkal waaw kon kon kon nee ko daal suñu xol sedd na lool waaw nee ko waataale ci kanam daal suñu xol sedd na sedd laay boo xam si ne moom wallaay mas yi am na fu mu tàmbalee waaye amu fu mu kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kon bu ko defee sëñ xaalim dafa mel ni da lay gunge am na euh, lu mu jox sëñ maam Mor xamna naa tamit nataal la bo xamni dañu bëgg sa bu ko xolé rek di ci fatte liko wa talif ci kanam di len ñaanal mo war xamna bu soob yàlla loolu sëñ maam moo sëñ sëñ Moustapha Mbacke inshallah allahu dana la ko jox bu ko defé nga joxal ñuko ko mam Mor ngam sa bu gisé nataal bi rek xelam dem ci ñun man ñoo ñaanal incha allah ci kàkkatar lu mu yéeg rek da di koy nuru far nuru gi yéem na ma man fogg na ne moy ki la yar ci kàkkatar lu muy yéeg rek daal di koy nuru lool nuroo gi yéen na ma man foog naa ne mooy kii la yar rey na ma si ndax ak unku moo ko waral jàmm bu ne lum defi téeg day mujj nekk ko far day mel ni tey seexu Mamor Mbàkke moo fi taxaw seen kàddu benn la yow yaay néeg mu nekk sa kër tey magi mag bég na lam nekkoon ba xëy jóge fi yéen a ko dekkal la xam-xam bëgg yéen a ko yor tey tool yi mbégteem ya dootul booy ne yey na ko ruuj te tooli mbégteem ya dootul booy ne yey na ko ruuj rijji ko tax lépp sax ngeen góobe lépp ci yàlla